naan sàngareen nekk ci tege ji taxaw café de Rome ak hôtel yi def lu leen neex ñu jox leen di bon ñu koy jaay bu leen caaxaan yi di wax maa fii laay waxee li ma xam li ma xam bu ma ko waxee àddina tukki barke alquran al karim ay yat ngeen di ba duma ministre yi génne ndax li ma xam xam naa ko lañ arrêté ku ne ñu jox leen cëram man sama wàll duma nangu ku ko taxaar di jëla kooku bëri naan sàngareen neex ñu jox leen ni boo ñu koy jaay di leen caaxaan yi ñu wax maa fii laay waxee dama xam